borom touba nena, amna bis muy dox ci touba boromam niko ñaar yef yëf na ci yow serigne bi neena ma laaj ko yu mu mu niko da nga dem ci man ba loo ñaan na lu ko may te suuf si nga taxaw muy suufu touba loo fi ñaan itam na lu ko may serigne bi neena maniko ndax bind nga suuf suy dem aljana sunu borom ni ma déedéet maniko dama bëgg nga defal ma suufu touba muy suuf si dem aljana neena sa borom ni ma defal na lu ko